may tantam, tàntaam man may wujj yaayam xalé bi dafa halabi tas sunu yaakaar ndax xale bi mom wax deug yalla bimu fi nekké ba musta xex musta xulo musta tokh musta naan sangara demul dikul liggéeyam la fonk ndayam bayam ak man mi tàntaam dërëm bu mu ligéy bala wàccee dama ci sama ni ma dëdd mu ne mu jëkkati xaalis daal di koy jox di wacc dina sukara warga nga ko yaayam ji bëggul dara lu ko nekk ñun dañoo toog tëddoon nañ sax après ci la moom portable moom ci leen woo sax daan ne papa yow yaay papa papa taala taala dañ koo gaañ papam na ko fan lañ ko gaañ mën na koo ci tànk mun na ko fan mën na ko ñëwal ñëwal ñëwal léegi magam bu góor bee moo taal otoom ànd ak moom ak beneen magam bu góor daal di dem après beneen magam bu góor bi tas la yor man ma dugg ci beneen magam bu góor bi ñu daal di hôpital ban demee hôpital madame la di ko yóbbu di ko yóbbu madame ba madame ba jàllale ko hôpital Kër Massar Kër Massar ko ñun daal presque wër nañu hôpital lépp hôpital yi wër nañu ko hôpital bu ñu dégg duñ ko laal amuñu lal hôpital bu ñu duñ ko laal ca Fann daal lañ mujj ba demee Fann mu ne papaam da nga jël tétanos ak benn garab goo xam ne dañu koy pikiir pour calme deret bi ak bande ñoom ñoo ko rajo ak rajo ko bi ñu ko rajo pare rajo bi génnee tànk bi ñu la def yax bi dafa ubbeeku xam naa bal bi la mu ubbi yax bi yax bi dafa ubbeeku xam naa bal bi ñu ko tiiree mu ubbi yax bi moom ma jaaxal ñoom xam ne carrément doon nañ bal xalit ñu daw bàyyi ko moto lañ ko teg ndax tiit nañ deret bari na sotti na deret ji bari tiit nañ teg ci moto yóbbu ko ab ta madam ba papa madam ba ko fekk bi ma àndee bu góor bi ba lañ ko fekk. yéen kan moo leen xibaar dañoo woo dañoo wax ñu ko dañoo woo papaam ne ko ta dañu ko gaañ ci tànk. papaam na ko ban tànk fu ne ko dañ koo gaañ waaxu su léegi nga ñëw magam taal otoom yóbbu ko heureusement bi ñu amee oto mu taal oto bi yóbbu ko moom ak beneen magam bu góor taal kàññi la tudd waaw bu baax xale bu am yar lu liggéey bokk ak waa kër gi du dox du naan amul benn problème amul sa àndandoo kër gi lay fréquenté ak kër gi rek lay toog fan yii dafa am yoroon benn portable papaam yaayam ne ko waaye taal taal yi doxee woon mun na ko léegi yii yaay léegi WhatsApp yi tax li kenn doxeetul da ngay yëg ci kaw di connecté say morom dematuma léegi su wàccee sangu pare mi ngi ciy kaw di tudd amul benn problème bu ko xale yi dee kaañoo bu jabaree rakk bagam yi mu ne yéen da ngeen a baax rek da a baax rek lu mu liggéey jox ko xale yi lu mu liggéey jox ko waa kër gi lekku dara bàyyi bàyyi waa kër gi liggéeyu dara bàyyi du am xaas bu ma am bokkoo ñoom lu ma am bokkoo ñoom xale bu yaru bu am respect bu am yar bu am rasa moo sama doobu bu góor bi li ñu magante bariwuñ